monsieur Niang ñëwaatee ci yow euh, ci gàttal rek quels sont les grands axes du du programme euh, du professeur Daouda Ndiaye. Euh, merci beaucoup madame en fait euh, les fondamentaux euh, du programme du professeur Daouda Ndiaye c'est d'abord en fait l'emploi donc l'emploi des jeunes euh, qui est une demande sociale mi nga xamante ne dinañ jéem a fexe. ba ndaw yi ñu mën a am les conditions réunies pour mun a am xëy en passant par une bonne formation mais aussi euh, en passant par euh, par comment il s'appelle encore l'entrepreneuriat donc ñu am xëy en plus euh, la paix sociale et la politique maanaam tey euh, ñu delloo siwaat euh, li nga xamante ne moom mooy la paix sociale dans dans sa vraie forme ñu restaurer les valeurs morales et religieuses maanaam tey gis nañ ne Sénégal am na yu bëri yoo xamante ne daf fiy xew te daanu fi woon xew lu mel ni tey yaa ngi dégg caaro yi ñuy jaale seeni mbokk au passage euh, ay nit yuy reyante mm-hmm. di gis nañu sogaas keroog ku rendi moroomam donc yooyu noonu nga. xamante ne Sénégal toujours eu des drames bon ça mais en fait ni mu multiplier wo ces derniers temps. Hmm. maanaam yaakaaruñu. mais non c'est un problème isolé aussi. non c'est un problème isolé mais en fait. c'est c'est juste politiser tamit non non en fait il faut pas il faut pas il faut pas le politiser oui mais dama lay wax ne rek maanaam nit ñi ni ñu changé.